auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey nag damay def benn séquence vidéo bu gàtt ngir def benn alerte ndax lii dama ko wecceeku léegi te ngi fii ci biir tuubaa muy couleur yi nga xam mooy couleur góor jigéen te indi fi coow lu ci biir réew ba tax imaam yeeg kenn ku ci nekk génn di wax mu mel na kon image bi commencé naa dugg ci dëkk bu tedd bii di Touba maa ngi ko weccee ci mag mu am juróom fukki ak nangam moom xamut luy waaye benn commercant rek buy tuddoo sëñ Tuubaa moo koy vacances yi moo koy moo koy voyage yi ñëw indi ko ci biir dëkk bi jox ko ko ngir mu man cee mus dal may def alerte nag ci sécurité amaan ak couleur yi nga xam ne dañuy xeexal yoon wi ñu xam ne lii couleur bu méngoowut ak dëkk bi ndax couleur bu ñuy màndarga di ci màndarga góor jigéen waruñoo seetaan ba muy dugg ci biir dëkk bi ñu naan Tuubaa fii laa ko weccoo ko góor gi weccoo wecc ma ko benn bu ci nekk juróomi téeméer léegi nag comme weccoo naa ko tey it keneen mën na ca yore stock bu bari di ko jaay ci biir dëkk bi ñuy tudd na Touba kat couleur yooyu nga tax may def alerte ci ñi nga xamante ne yor nañ ci lu bari ak kuréel yi nga xam ne dañuy xeexal yoon wi ñu xam ne lii dugg si na ci biir dëkk bi muy couleur góor jigéen googu nga xam ne Wally Seck soloon na ko ba mu indi coow ci biir réew mi kon couleur yaa ngi nii ci biir dëkk bi may wax ñi nga xam ne dañ ko yore nag te tuddee seen bopp sëñ Touba ñu xam ne lii méngoowut ak dëkk bi ak war may dëkk bi ndax couleur boo xam ne dañ ko tudd te foo ko tuddee góor jigéen njort naa ne bokk na ci li sëriñ bi njëkk a tere ci biir dëkk kon nag safinatul amaan ak kuréel yi nga xam ne ñooy défendre dëkk bi nañu xam ne lii dugg si na ci dëkk bi ñu dugg ci marché bi ak bitig yi nga xam ne voyagé nañ ko stocké ko ci